Assane Samb ñu ngi lay nuyu di la dalal ñuy fàttali ne ñoo ngi dal wax yi di directeur de publication bu Rewmi Quotidien. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax Elisa di nuyu auditeurs yëpp di leen baalax di leen baalax. Euh, ñuy door ak li nga xam ne mooy politique wax ci euh, li nga xam ne mooy tamit euh, datu élection locale yi jàpp nañ ko te it ay fan ñoo ngi nii ñuy gis ne dafa mel ni Sénégal door nañu campagne lan moo waral agitation bi selon yow. waaw li indi agitation bi mooy date bi dañ ko yàgg waxtaane ci cadre dialogue politique bi euh, ñu dem daanaka ba juboo ñu waaye mën nañ ni li leen wutale bariwul hmm. ndax écart bi benn weer rek la woon décembre la opposition waxoon pouvoir wax janvier deux mille hmm. donc euh, finalement bi ñu décidé chef de l' état tranché décidé deux mille vingt deux Euh, dafa mel ni dak euh, daanaka changé wu dara. Mm-hmm. ñëpp xamoon nañ ni dañ koy organiser ci période boobu. Euh, donc loolu moo tax daanaka bettul kenn ñëpp xam nañ ni mënuñu reporter local yi ñetti yoon di ko continuer def donc il fallait que ñu décider te décision bi tombé na. Euh, donc li ci des mooy song terrain bi da di local nag da di élection spéciale Euh, parce que tamit mooy ubbi buntu élection yi parce que bu ñu jógee local dañuy def législative incha allah en juillet. Mm-hmm. après ñu dem 2024 euh, présidentielle donc mooy ubbi bunt bi te comme mooy ubbi bi nag euh, kenn bëgg ko raté donc état major yi am na ñoo xam dañu toll ci PCO am na ñoo xam ne dañoo toll effectivement ci wane seen bopp donc moo tax ñëpp taxaw mel ni campagne bi commencé na alors que en réalité des na ay weer. weer yu bëri sax euh, donc euh, euh, mais moon nañ élection aussi te donc il faut que ku nekk taxaw préparer ko ndax élection yu am solo la également. Mhm. tey ñàkkum structuration yenn parti ak it coalition yi nga xam ne dafa mel nii kenn xamul kan moo nekk fii wala kan moo nekk fële ndax dina am lu mu lu mu joué ci local yooyu lay ñu jëm. ah oui day joué bu baax parce que coalition yi xam nga. Euh, daanaka kenn du ko structuré li si ëpp ay yaama neex lay doon. Hmm. Euh, daje ànd. Hmm, eh, waaw xuloo tàggoo hmm, daanaka li si ëpp loolu la. Euh, effectivement local yi nag élection spéciale la parce que. sa mboxoo bu metti la. du doon parti rek du doon coalition yi rek mais aussi membre société civile yi ku ne da ngay bëgg a sa Euh, ñi nga xam ne ñooy acteurs économiques yi également. Mhm. Euh, donc du bàyyi kenn ñi dafa intéressé ñëpp. donc dina am njeexital ci ci élection yi parce que euh, li nga xamante ni locales yi li nga xamante ni mooy coalition yi structuré ko parti yi également. bari nañ bari goo xamante ni mari deytaali mhm. te ku nekk bëgg nekk candidat te fii amul parrainage donte day am caution donc kan liste yi mën na mën na bari lool Euh, buuxante bi mën na bari te coalition yi comme dëgërul euh, investiture yi le problème bay nekk parce que mën na andi ay frustration xam nga tey bu ma ànd ak yow ci coalition nga mm-hmm. bëgg a jël sa sa nit teg ko ci tête de liste alors que mu foorul ci localité bi ma nekk mm-hmm. man maa jàpp ni man maa fa ëpp doole euh, boobaa man mën naa mer demal sama bopp mm-hmm. donc yooyu yëpp day am donc loolu mën naa tax effectivement coalition yëngatu parti yëngatu Euh, élection locale la élection proximité la te kenn du benn bëgg ñu beddi la. Mhm. ci liste wala di la bàyyi duñ la fulaal. parce que liste yi ñaar la liste professionnelle ak liste majoritaire. Mhm. Euh, nga nekk tête de liste daf ci am solo mais buñ la yóbboo ca ginnaaw. Euh, war ne du yàgg ba nga nekk conseiller municipal. Mhm. wala fii xam ne dañ ñoon élire les maires au suffrage direct. donc buñ la tegul tête de liste yow itam da ngay mer jàpp ni am nga chance pour nekk maire kon euh, doo dem ànd coalition boo xam ne dañ lay dañ dañ lay def escalier. Mhm. donc yooyu mooy débat yi nga xamante mooy am ci biir parti mooy am ci biir coalition yi euh, mooy am également ci diggante parti ak euh, les les membres la société civile. donc loolu mooy enjeu bi et dafa nekk enjeu bu doy waar investiture yi ni ñu koy defee dafay nekk yi nga xamante ni moom mooy déterminant moo ci am solo Mhm. ci mer googu lee ndax jàppoo ne sax euh, moo ngi fi ak li ñuy gis ci yenn coalition yi ci mel ni Benno a ah oui parce que commencé na xam nga euh, au niveau de Benno déjà Dakar day nekk comme c'est la capitale. Mhm. day nekk enjeu bo am solo euh, déjà gis nga ko bi Omar bi comment dirais-je Abdoulaye woote réunion. Mhm. ñu bari ñëwuñu donc mel ne Amadou Ba et autres Mame Mbaye Niang mi ngi doon ni moom du dem. ainsi de suite. di di di commencé song Abdoulaye Diouf Sarr donc dafay nekk problème ci localité bu mel ne Dakar mais aussi day nekk problème ci yeneen localité réew mi euh, nga xam ni nit ñi euh, ànd nañu mais ànd ànd la boo xam ni du ànd bu dëgër. Mm-hmm. Euh, donc coow li dinay commencé bari à Kaffrine. ñu ngi dégg également Milan mi commencé di wax parce que comme ñu ngi def Ablaye Sow. ministre de l'habitat mhm. Ablaye Sow commencé di jël initiative foofu a jàpp ni du ko du wax ak moom mhm. euh, andi ay frustration au niveau de Kaffrine mais également euh, ci yeneen localité parce que xam nga coalition bi euh, yaa ngi fàttaliku côté ay Bambey yooyu yëpp mhm. donc il faut que ñu attention ci alliés yi parce que bo leen écarté maa ngi fàttaliku coow li MDR bu Pape Diouf ak la coalition donc du ñàkk daal daal partout dans le pays ba au sud. Mhm. day am ay difficultés parce que lépp mu ngi dépendre ci investiture yi parce que kenn du am doole sa localité tamit ñu lay écarter ci liste bi wala di dugal ci ginnaaw pour ngay soutenir beneen candidat boo xam ne xëy a moom jàpp nga ni amul doole bi nga am yow. Mhm. Euh, loolu dafay nekk problème bu sérieux. Mhm. ci liste yooyu la sax Sénégal commandité woon benn audit fichier bi ay experts jox nag euh, seen i conclusion waaye ci biir recommandation yi gis nañ ne euh, ñoom am na li nga xam ne euh, dugal nañ ko ci muy ñi ñu dàq ci liste électorale yi ci ay délits ak crime yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne day violer lii di article vingt cinq li ni mel tax ba ñu xalaat ndax am nga wala sax foog nga ni Khalifa Sall ak euh, Karim Wade euh, mën nañoo bokk ci élection yi ñu dëgmal. waaw audit fichier bi am na solo trop parce que euh, cent vingt quatre pages la. Hmm. bi ñu déposé rapport provisoire bi. xool naa ko mais recommandation ci def am na solo lool bari na ci loo xam ne opposition bi dafa yàgg a kaas. Hmm. te audit ñu doon audité bàyyi ko xel. Euh, mais également ñu doon audité sax dem nañ ba li nga xamante ne kawe na suñ njort ci wàllu euh, démocratie te bu ñu leen toppee seen recommandation yi topp ko à la lettre. Mhm. yaakaar naa démocratie sénégalaise dina gën a avancé mais gaw ma euh, pouvoir bi dina appliquer <laughs> recommandation audit audit bi. Mhm. li ma a xalaat mooy surtout ka Khalifa Sall ak Karim Wade. Euh, la ñu xalaatoon rek la ñu jàppoon rek la ñuy jàpp ba léegi mooy dañu pour ñu mën a bokk ci élection il faut ñu amnistie. Mm-hmm. parce que euh, waa audit bi li wax leer na nañ nit mënul rek nga nga exclure des élections euh, mu continuer voilà ad vitam aeternam maanaam dundam yëpp mu mm-hmm. mel ni rek ko exclure te doo am benn boulevard boo ko ubbil mu mën a dellu si te loolu tamit wax nañ dëgg yaakaar naa ne kaa Khalifa Sall ak kaa Karim Wade aussi ko mën a régler te ay leader politique yu mag. yoo xam ne dañ leen écarté. Mhm. ñëpp xam nañ ay interprétation loi moom moo moo nekk foofu. parce que le ministre Sidiki Kaba il était clair bi nga xamante ne condamné nañ Karim Wade dani pertul ay droits civiques civiques civiques ak civil am donte mhm. après. position majorité bi dafa changé. Mhm. donc comme fi ñu leen téye noonu ñoom téye leen lu ñu mën a inscrire yaakaar naa loolu mooy parce que mbiru politique tamit moo nekk ci ginnaaw xam nga depuis le procès ñëpp xam nañ ni euh, procès politique maanaam dafa amoon. dose politique boo xamante ne moo ci ne. Mhm. ay calcul. Mhm. calcul yooyu mooy continuer ba léegi dañ leen di jéem a parce que ayoon nañ ay parti wala ay mouvement yu fort surtout Dakar. Euh, donc duñ leen bàyyi ñu libre noonu mu gaaw parce que rek simplement ci rapport audit bi def nañ ni seen cas war nañ ko xolaat donc mhm. loolu CEDEAO waxoon na ko. je pense que au niveau de la CEDEAO lépp waxoon nañ ko pour Sénégal xoolaat mais Sénégal mosul appliquer lool donc doo mën tey dina ko def. Mhm. tey nga wax euh, euh, nga wax sànq ci say wax euh, wax loi d'amnistie foog nga ni ñoom ñaar ñooñu di Karim Wade ak Khalifa Sall dinañ ko nangu. oui oui moo arrangé bu fekkoon comme appliqué ñu ni CEDEAO waxoon ñu réviser procès hmm. surtout bu Karim Wade donc ñu voté loi d'amnistie moo hmm. leen arrangé mais pouvoir bi du ko voté noonu loi d'amnistie <laughs> waa boo ko voté day setalaat ñëpp day effacer les faits. Hmm. dañuy dellu ñoom fa ñu nekkoon am virginité politique loolu pouvoir bi du leen arrangé hmm. xëy na euh, donc gawma ñu def ko noonu euh, mën naa nekk nag pour mu mën nekk il faut moom ay négociation politique ci derrière hmm. dans le cadre du dialogue politique mënoon nañu teg euh, cas mu nekk des points de dialogue wala boog mu am li ñuy wax ay boulevard ay couloir parallèle par exemple Euh, discussion yi Ablaye Wade amoon ak Macky Sall. Mhm. Euh, yéen a yaa ngi fàttaliku le protocole de Massalikul Jinaan euh, discussion yooyu mënoon continuer ci suuf ba nga xamante ne ay na xëy na dañ mën a seetaat kaa Karim a seetaat également kaa Khalifa Sall parce que loolu moo gën ci démocratie sénégalaise. Mhm. parce que ñaari candidat yooyu di leen continuer exclure du rafet ci dara démocratie bi dafay indi gàkk déjà boo xooloo boo xoolee ka Khalifa Sall moom xaarul préparer na boppam mhm. maanaam tey jàpp na ni euh, Barthélémy Dias mooy nekk candidat à Dakar donc moom yooyu préparer na boppam xam na ni pouvoir bi du ko bàyyi mu libre mais doolem politique da koy continuer am da koy continuer taxaw euh, day continuer di am force politique à Dakar parce que am na budul Khalifa Sall am na yeneen tëdd liste ku mel ni Barthélémy Dias koo xam ne mën nañ ko teg wax si euh, li nga xam ne mooy projet de découpage euh, bi ñu nemmeeku ay fan ñu koy coow euh, ci yenn gox-goxaat yi li ni mel tamit tombeek ñuy waajal ay local bu dee dàqatuñu ko donc à huit mois de ces locales tey jii nan nga jàngatee boobu les projet de découpage. écoutez projet de découpage boo xam ni am na solo. am na solo ci yenn côté. Hmm. mais dina jaxase nag lu bëri bari commencé na parce que déjà am nañu manifestation jaxaay am hmm. ay manifestation fële ci Bambilor hmm. euh, parce que xam nga tamit euh, li ci am ci ginnaaw mooy euh, en de 2011 parce que maa ngi doon wax 2019 mais 2011 yi nga xam ne Aliou Sow moo nekkoon ministre des collectivités territoriales hmm, dañu découpé woon Sangalkam daggat ko dindi ay dëkk yu bari bàyyi Sangalkam ñetti dëkk bàyyil ko Naflaay ak Jaxiraat kese mu nekk Sangalkam Jaxiraat Naflaay nekk communauté rural à l'époque Mm-hmm. loolu aussi parce que Abdoulaye Wade da ko defoon pour xeex nga xam ne mooy Omar Gueye ci parti Idrissa Seck mi euh, comme Omar Gueye da ko sonaloon ci zone boobu mu xeex ko dagg Sangalkam euh, taf lépp ci Mbambilor mm-hmm. nga xam ne ki fa nekk mooy Ndiagne Diop euh, tey bu ñu rétablir yooyu dafay dafay nekk justice parce que tamit il fallait que Sangalkam nekk jëlaat poids am bu jëkkoon. Mm-hmm. parce que xam nga Sangalkam dafa mujj mu sonn nekk commune boo xam ne wala commune rurale boo xamante ni commune rurale pilote la. bari na ay projet yu ñu doon testé en matière de décentralisation alors que projet yooyu ñu ngi ko commencé fi nga xamante ni mooy Sangalkam. Mhm. alors donc Sangalkam waroon na mën a delluwaat nekk na meloon loolu moom lu amee solo la mais ci contexte bi ñu ko defee te waxtaanuñu ak kenn waxtaanuñu ak collectivité euh, responsable yi à l'époque ña fa ne. Mhm. waxtaanuñu ak chef de village yi waxtaanuñu a population yi ñu jóg def ko def projet bi euh, loolu tamit de indi frustration euh, te je que mënoon na commencé dialogue xool ci yan point consensus lañ mën a am ci lan lañ mën a d'accord euh, loolu dana ci baax trop trop gis nga déjà le maire de Jaxaay euh, Mor Sarr wax na ko. Mm-hmm. nee na règlement de compte politique la parce que comme Omar mooy euh, le ministre des collectivités te jubawul ak ki nga xamante ni mooy son ancien kii la ami. Mm-hmm. ki nga xam ne mooy Ndiagne Diop le maire de Bambilor. Mm-hmm. ñëpp dañuy jàpp ne Omar Gueye dafa def séddalu bukki yi maanaam tey dafa jël comme mooy ministre collectivités territoriales. dafa jël commune am may ko doole. et yooyu yëpp mooy moytu ko woon ko nag doon nañ mën a def ay dialogue amoon nañ temps pour discuter situation boobu euh, xool nuñ koy réglé parce que zone boobu léegi dafa développé trop pourquoi parce que moom mooy banlieue Rufisque voilà moom mooy banlieue Rufisque euh, Rufisque di banlieue Dakar donc quelque part ñëpp léegi ñu ngi daw jëm si foofu di dëkk si foofu donc parce que Dakar dafa xat mm-hmm. donc mënoon nañ gën a discuter moytu yi mais découpage boobu yaakaar naa justice la tamit parce que li dax amoon 2011 moo indi tamit frustration yi euh, au niveau de Sangalkam et autres moo tax tey Omar Gueye ak le président Macky Sall jàpp ni ay dañu war a delloowaat Sangalkam dooleem et je pense que loolu moo tax euh, ñu def découpage bi mais euh, fi nga xamante ni mooy euh, Kër Massar yàgg na ko wax. Mhm. yaakaar naa ba mu demee en septembre diggoon na ko. Mhm. dina def département. loolu aussi yaakaar na Kër Massar léegi am na doole lool <laughs> am na ginnaaw aussi. Mhm. normal c'est normal si mu nekk département découpage bi bonul. mais le problème mooy ñàkk waxtaan bi mooy moom mooy problème waaw ñàkk waxtaan ñàkk concertation bi ñàkk consensus yi kon daal bonul euh, injustice bu ñu euh, rétablir la waaye it euh, ñàkkul politique. ah oui ay calcul ngi ci derrière parce que xam nga <laughs> exactement je pense ñu wax naan parcelle aussi am na am na dayal découpage bi daf koy laal. yu yooyu parce que am na nay calcul évidemment parce que souvent loolu mooy li xam xamante ni moo am affaire collectivité territoriale moom dañ koy jàpp souvent loo xam day dooleel également le pouvoir en place bëgguñu maire ya nekk wala euh, conseil départementaux ya fay nekk. Mm-hmm. nekk ñoo xam ne dañuy contre le pouvoir loolu moom surtout dans la région de Dakar et banlieue. donc loolu pouvoir bi du bëgg moo tax souvent buy def ay découpage day tenir compte également des forces politiques ak yooyu mais problème bi mooy mën na indi frustration aussi parce que man nga koy def pour dooleel sa bopp moo indi ay frustration gars yi dem verser ci opposition bi te boobaa aussi du parce que bu fàttali i ñu bari ci maire yi dañ nekk ci coalition bi boo leen ku mel ne Dieng Diop na trop keroog ñu koy dégg ci conférence de presse mhm. alors kenn du xam après lu mu mën a décider te Dieng mu dëkk ci zone am ci dëkkam la ne euh, foofu yëpp ay mbokk ma fa ne. Mhm. fa nekk maire noonu donc <clears throat> situation la boo xam ni c'est très sensible il faut que ñu ci def attention. Mhm. di ci jiital waxtaan. waxtaan di ci jiital day am solo moytu frustration yu ba xam day andi ay bouleversement wala instabilité nit di jóg di di manifester fu ñu toll. Mhm. wala également di mer di day fippu di dem ci opposition. Assane Samb ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci Elisa maa leen di jaajëfal. Mhm, may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi doon dalal kii di directeur de publication bu quotidien mi